asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaar comme ni ngeen ko xamee rek 100 pour cent làmb Equivox TV macha allah du mën a ñàkk nuyu nañ képp ku ñuy suivre tey nag li tax ñu sol suñu dàll lenn la olof a ko wax lu dafa wax lu aay di njàmbat problème bi mooy ku ne xam na ne bërki démb di talaata bii ñu jóge kii nga xam ne moom moo doon Luc Nicolaï ak waa Luc Nicolaï production wala waa Nicolaï Enco dañu organisé woon benn daje bu waroon dox ci diggante Ama Baldé sa bu ndaw doomu Pikine ak Modou Lo le ah bu Parcelles Assainies ñu waroon daje premier jàkkaarloo waxante mais olof li tubaab ba naan malheureusement moo ci mujjame parce que ñaari mbër yi loolu mujj ñu ko def la ko waral nag bu dee ñaari mbër yi ñun ci li ñu xam ku ci nekk ñëw nga ca lieu ba waaye la fa dajewoon ci mbooloo ak ya ca am bëri na tey nag ñu bëgg nag ñëw parce que niñ ko defee fii nañ ko defee noonu Pikine ku gis Ibou Laye nga gis Papis gis nga Modou te defe naa ne moom mii kera li am am na lu mu ci war a mën a leeral sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy supporter muudu ndax am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni muudu moo yéex a ñëw parce que Ama teel na faa ñëw ba Ama mujj fa moom itam toog ba mënatul a xaar mu dem yoonam Ibulaay ndax loolu lu mu ci mën a leeral sénégalais yi maa ngi lay nuyu di la ziar Ibulaay di nuyu ñi ma fekk fii ci parking bi yëpp waa rawatina waa pro oto pro nag faw ma tudd ko waaye xam naa boo ñëwoon jàpp ci liggéey lay gën baax maa ngi lay <laughs> waa kay ngi lay ziar waa di nuyu waa téléspectateur Equivox yëpp waaw ñu leen ñu di leen ziar di leen baalu ak waaw. Ibou defe naa ne ku tudd Modou Lo tudd la yaa ak Modou boo mu ko tënkal ci lu ndaw rek yéen ñaar ci lu tuuti rek nga tënkal ma Ibou Laye ak Modou. waaw comme ay mag comme ay frère rek ay frère la ñaa ah, comme ku bokk ndey ak baay waaw moom dem nañ dañ dem ba dépassé ay xarit fi mu nekk nii moom leneen la ñuy wax waaw déjà man sama doom rek Modou laa ko tuddee sama taw Modou laa ko tuddee waaw. donc weesu nañ ay xarit quoi vraiment maay moom mooy man comme ñu ñëpp ah waaw moom fii c'est la famille quoi fii moom ñun fii moom famille lañu waaw. parce que dégg naa sax ci benn way boo xam ne Wally Seck ba muy way Moodu yéen ñëpp la ci boole Ibou Laye Papis Baba Demba yéen ñëpp kon mu mel ni ay frère ngeen daal. waaw fii moom la famille moom ñu ñëpp ñoo bokk quoi. léegi su ma ñëwee nag bi nga xam ne mooy coow li waral coow li te sax ci jàkkaarloo bu nit ñi mën a gis keroog seen diggante ak Ama Baldé jàkkaarloo boobu yéen nu ngeen ko waaje ak nu ngeen ci ñëwee. waaw comme yeneen yi ñu doon waaje rek xam nga def normal préparer normal ñu am face to face ak Ama Baldé donc euh, du ñëpp gis nañ lamb yi mu bëre yëpp bu am signature contrat chaque fois moom moo fay moom moo fay njëkk sax mbër mi muy war signature ñu des fois fa fa ñuy toog lekk sax fa la ñu koy jëndal pour mu lekk comprendre nga mais tamit ñun. toll nañ ci làmp foo xamante ni nekk nañu ay xale quoi. mais Ibou ma la dagg euh, dama lay relancer rek mais bii passé est-ce que yéen a fi jiitu Ama tamit. non bii passé Ama moo fi jiitu parce que moom 20 heures dañ ko ko xamee moom war a njëkk ñëw comprendre nga mais fuuli mu àndal ak fuuli mu loo àndal mu ñu dajee foofu ñu waxoon ci dëgg problème de sécurité la problème de sécurité la am na loo xamante ni ñun duñ ko gàddu mu dem ba dem si condition yooyu xalaatuñ ko waaye léegi nekkatuñ ay xale. dañ dem ba tey titre roi des arènes dafa xam dafa am fu ñu war a teg suñu tànk xam fi ñuy dem ak fi ñu jëm tey bu doon sécurité am na affaire bi tegu ci yoon a Baldé duñ fa jiitoo cinq mais condition yooyu ñëpp Sénégal yëpp nañ ko condition yooyu ñaari ñaari mbër yu am mbooloo ñu fa dajee mënul nekk. kon yéen balaa ngeen di ñëw xanaa da ngeen a gis wala dañ leen wax na leen fii lii moom. ñàkk mënul ñàkk ñun mënul ñàkk am ñoo xam ne fa fanaan. ngir seen TV ah mais munul ma ne la ko yaakaar ñu ñu làmbuñu ah. yaa ngi nax sa bopp de ku yaakaar ñu làmbuñu amul lu ñuy rëcc. ci combat point par point. kon keroog fanaan nga wax seen TV yow bi ñu ne suba la jàkkaar. Eh, Babacar man Modou Lo laa lay wax de Modou Lo lay wax de ah. Modou gis fan yii mu mel nii ab ak ay jàllaabeem ak ay affaire am. naka est-ce que Modou mi Modou mi mu ngi làmb tamit. saa waay. mootloo Lo laa lay wax sénégalais xam nañ koy Modou Lo nañ def ndànk rek am na yar nag am na teggin mais bu dee su demee nu làmb rek nañ def ndànk nañ def ndànk taxam ni ak Ama Baldé ñooy bëre man bërewu ma Papis bëriwul keneen bëriwul coow li lu muy rëy rëy rëy yëpp bar bi tëjee barrières yi Modou amaa Ama ñoo taxaw digg arène national mais est-ce que euh, tamit am na lu ñi di xalaat est-ce que amu ngeen lu ngeen insisté ba tax ngeen mujj a ñëw ba tax ngeen parce que ama moom ci ni ñu déggee kaam ñoom dañoo pare déjà moo tax ñoom bu ñu leen ñoom moom dañ maam fu mu da doon ñoom la jàpp mooy dañuy ñëw taxaw di leen xaar est-ce que yéen tamit amul lu ngeen di xaw a moytu ci ama wala. non xam nga yow Babacar làmb ji ni mu yàqoo woon fan yi yëpp fu ne ñu fay toog pour mbëri fu ñu toog fa di di di jooy pour ñu ubbi leen stade yi ah Modou Balla Gaye Gris Bordeaux Eumeu mais télé bi lañ toog di jooy di ko jooy pour pour ñu may la ñu ubbi stade ñu bëre mais tey li am li am bërki démb amaa Baldé ñëw indi ful boobu Modou ñëw indi ful boobu mais su fa problème amee mu am ay gaañante ay trayanteeg yu kenn xamul mais après kon lu ñuy wax làmb nga xamante ni moom la gay gën a sikk lu yow lu ndaw lu am ñu sànni ko làmb mais mais Babacar ñun roi des arènes la ñu yor ñu xale bu ndaw boo xamante ni day xëy nii rek ñu kii ko non non Modou buy génn si condition yu leer lay génn te yéen ñëpp Sénégal yëpp xam nañu signature contrat boobu xajul woon fi ñu ko bëgg a def non xaju fa. kon Luc Nicolaï loolu mu def maanaam mujj annulé affaire bi kon yéen ànd ngeen ca loola. ah mais mais ñëpp ci ànd Sénégal yëpp ci ànd xam nga lu tax parce que lii moo gën. te bu ñu bu ñu mu am yenn problème moo si am ba tey yaa ngi wax ay yeneen comprendre nga parce que ful boo xam ne ñaar ñëpp bu ñu dajee bu ñu taxawee fële arène national fees ko ci signature contrat donc loolu loolu mais ñun sax loolu garaawul mais bu doon lieu bi am na sécurité ñun ay ful Ama Baldé jaaxaluñ de parce que. Ah, ful Ama jaaxalul naka la ñuy jaaxale mais yow ful Modou Lo bu taxaw saa yi nañ wax ci am na loo xam ne sax jaruñu si egg mais dama ni la man côté ful ba Baldé yooyu ñoom nañ ko constater mais dama ni la sécurité amul foofu boo xam ne Modou mun na fa dem en tant que roi des arènes. sànq dégg naa la nga ne dangeen ngeen di làmb mais yéen da ngeen di làmb ba jàpp ne ci seen xel yi a gën a làmb fi mu nekk nii waa kër waa ñun xam nga ne lu ñu def de mais ñun suñu bopp laa la wax ñun suñu bopp xam nañ si lu ñu nekk ak fu ñu jëm bu gars yi waye dii de foog nii ah baax na parcelle laa la wax de saa Parcelles laa la wax de Modou Lo laa la wax roi des laa la wax. roi bi ki ngeen ko seqal nangu ko la bëgg de. waaw mais saa yow ci dem rek xam nga yàkkamtee xeex daal xam nga Modou mos leen ko wax. nee na gis nga Modou ak Ama bëri woon nañ bu yàgg bu yàlla dogaloon ñu boom Bombardier bu doon folof ñu amee roi des kon Modou ak Ama nañ bu yàgg li kenn waxatu ko. kon yéen teeloon ngeen a nangoo bëreeg moom. saa waay Modou ñi booy ñu ay moromam ñi ñooy moromam. ñi ñooy ay morom c'est-à-dire fële dafa rek pour jot li mu soxla woon te mu ko dafa wàcc tey Sénégal yëpp dañ ne Modou woon jël Ama Baldé dem ba dem ba jël roi des arènes soo jël Ama Baldé. est-ce que Ama tamit prouvé eh, Ama nag lu tax ñu war ko jël daa mel ni. mais ñun bu ñu ñeexoon continuer nekk fi ñu nekk mais Modou pour bëgg defar làmb moo tax mu wàcc jël Ama Baldé. Ama it nag daa yàgg dugg parcelle di fa daan ay mbër. waaw yooyu yëpp du problème mais du Modou ñëw na parcelle Modou Lo daan ko bokkul. ngeen yaakaar ne loolu dañul doy daañu boobu est-ce que mënati naa ne. Ah, may gudd fan ak wér rek ba ñu fekk ñun daal ñu ngi wàcc ñu ngi naan yàlla mi am am ndam yàlla ñu yàlla may ndam bu sedd guy ñun jéemul lijjanti leneen ñun muut lañ lijjanti ak parcelle keneen kuy def leneen nag ba leneen fekk la ci yaa xam mais ñun xam nañ fi ñu jëm xam nañ fi ñuy jaar xam nañ li ñuy def. seen xel dal na fi mu nekk nii ci combat bi. bu dal daal <laughs> ah, ñun daal ñu ngi liggéey ñun daal en tout cas xam nañ suñu mbër toogul mu ngi liggéey waaw ñun tamit li ñu war def ñu ngi koy def ba bis ba mais affaire yi ñuy bëgg def nii yëpp amul sens. ana Modou ànd ak fuul mbooloo kërëb kër yëpp ay deuxième la coow li coow mooy Modou Lo Ama Baldé ñooy dugg ci géej gi ñooy bëre bu su boobaa da nga xam kuy jàmbaar. Ah. laa ilaaha illallah. keroog la jàmbaar di feeñ. gars yi xamaguñ sax. incha allah ana Moodu. mu ngi fi mu ngi si jàmm bu baax a baax a baax a baax. nu mu dund affaire bi moom. mais au calme zéro stress zéro stress xam nga Moodu ma bëggul dara lu yàqu Moodu li ko gënaloon mooy mu egg mais mu lu woon nekk amul sécurité mu lu nekk moom bu soñoon day egg moom moom bu soñoon mu wàcc mu wàcc moom xuus dem mais tamit dafa am staf am na loo xamante ni mooy loolu. yéen yéen a xool daal xam ne lii bii moom valable pour lii ngeen ne ko doo yegg. mënul nekk mënul nekk ñun lépp lu ñu def xam nañ xam nañ la xam nañ lan la lépp lu ñu def xam nañ lan la. du ñu jékki-jékki rek fërq dem topp fugu de jeunesse non non comme que ñu nag Ama Baldé nañ dem non non. toll ñu toll duñ foofu ci làmb làmb ñun da ñun dafa am lu ñu ci prouvé loo xamante ni fi mu nekk nii comprendre nga lu bëre. xam nga ñu ñoo si war a njëkk def si ay gestes yu baax ak gestes yu rafet comprendre nga mais ñun waruñu jékki-jékki rek ji def non non non moo dépassé na foofu. te xëy naa gis ci suñu làmb que ni benn coalition bañ tuddee ko seul contre tous parce que muy Balla muy Sa Thiès ak ñëpp ñoo ñëpp ñu ngi ànd ak mu Ama di ko jàppale te lépp xëy na pour bëgg Modou daanu la sunu làmb moo ko wax loolu xaw ma leer nga ko xaw ma leeroo ko mais dina dina la ci laaj sa xalaat ak est du leen jaax du leen tiital tamit parce que Balla moomu daa fu ngeen jaar ak sawaay ñëpp bu leen neex ñu dem ànd ak Ama Baldé amul benn problème mais dama ne la géew ga géew ga arbitre daa fay nekk muudu ak Ama su boobaa su boobaa dina xam kuy jàmbaar bu leen neexee waaye yow na ànd ku ko neex mais li ma la wax ni yëpp day sore Balla sax du leen tiit wala coow li di am nii gars yi di wax wax bu ñaaw bu ne ñu wax yëpp te ñu wax nii rek mais bu soobee yàlla incha allah Modou ak Ama dañ taxaw. pourtant waa Pikine tamit am na ku ma jàng ci journal suñu lamba moom la mu xamle mooy bu leen kenn traité ay bandi ndax Pikine du ñu ay bandi ñoom seen mbër la am ànd ak moom di ko gunge mais du ñu def lu ñaaw tey du def lu ñaaw ëllëg. non loolu moom xëy na kooku loolu la gis mu commentaire mais ay bandé ak ñàkk bandi man daal dama ñu la sëñ Babacar ñun daal ñu ngi gérer suñu combat xam nga ñi nga xam li ñuy def ñu nga xam fi ñu jëm ku toog na ba ñu lay wax nag bandi nga doo bandi kon nga xoolaat sa bopp ñun daal ñun moom suñu côté vraiment duñ dem si ay si ay si ay sorxo sorxo quoi vraiment. mais signature bi am na ñuy xalaat nañ ko def ci ay ci seen jàkkaarloo yow ànd ànd nga ci lool pour sécurité. en tout cas daal fuñ ko mën ci def tamit day am sécurité même bu dee arène nationale lañ ko defee sax dañuy dem ñun mais am sécurité hmm. waaw buntu kër Ama bu ñu ko fa defee am mu am sécurité ñuy ñëw. même buntu kër Ama ñu ngeen dem. waaw Ama fii lay duggee Moodu fii lay duggee ñu dem. ragalu ngeen lool. non ban ragal ñu ñu signé Gris Bordeaux biir Fass loolu loolu day problème. est-ce que ñaari mbër yi benn la. non mbër yëpp benn lañ. saa yi lii li li méttiwul lii gëraawul saa yi Moodu Moodu Moodu. Modou Modou yow yow Modou bëri naa ñu gën a am safara Modou bi muy gën nekk xoolal Modou bi mu njëkk bëri Gris Bordeaux ni mu tollu ak ni Gris Bordeaux toll xoolal Modou bi mu gën ak yow la da guerre saay uma seen li garaawul kaay ñoo koy ngandal nii rek mais dama ni la ñuy topp ci ginnaaw mbëri di ruube nañ xam ni keroog Modou Ama ñoo taxaw ci géew gi Ah, nañ moytu jëpp seen mbër de saay nañ def ndànk rek ñun daal saay parce que ñëpp xam nañu discipline la ñuy woote jàmm lañu bëgg comprendre nga jàmm lañ bëgg mais ay taxaw naan ay Modou lii Modou lii Modou bu dee ragal xam yow sénégalais xam nañ bu dee jàmbaar sénégalais xam nañ moo dugg ci xam-xam ci ci yi ah, fay si géej gi dugg si mboy mi ba egsi fi mu egsi saay nañ def ndànk de <laughs> Babacar gaar yi xam ne moto la ñuy bëreel de barke arxuraanu karim moto la ñuy bëreel de. pourtant dégg naa yéen ci yi tamit de ah maa ne même juróom-ñaari ci mudu moo leen man de. waaw yooyu ah, mu wax man du ma ci nekk di wax yooyu garaawul man man sama ko. yooyu ko jox importance Ama itam ndax Ama nag Ibulaay yow xam yow da ngay seet Ama xale bu dogu la. waaw ah, d'accord mais Ama ne mbër mu dogu la yow. am na yoo xam ni man su ma ko waxee ci moom nekkuma responsable te damay tooñ. si ñuul ak man contrat. Modou si ak contrat donc moom Modou bu ñu jàkkaarloowee dinañ waxante comprendre nga ñun duñu ay tooñkat di dama toog fii di di ŋàññi Ama di non non Modou ak Ama bi ñu jàkkaarloowee dinañu wax li ñu war a wax mais man suñu côté moom loo ma si laaj naa fii lañ ne fii lañ toll nii ak ñun daal xam nga lu ñu xam discipline voilà discipline la ñu xam Ama lépp lu mu wax Modou après Modou dina ko tontu. mais yéen staff bi moom pare ngeen. ah ñu ngi ci daal. bu suba suba. pare nañ. Hmm. billaahi. léegi fu mu leen woo ci combat bi ngeen wuyu si ko. kan. ah lig moo tëgg. lig moo tëmoo moom loo koy wax. lig moo tëgg te moom keroog moom gis na jàngat bi moom xool na jàngat bi wax na ko xam nañu moo doog ama buy defati seen programme dina xool bu baax ni mu koy defee. maa ngi dégg sañu ci xalaat nan programme bi yoon dañ koy élargir yaatal ko def ko fu moo xam arène la wala stade la maa ngi ciy dégg sax dip dund gis ak ngaaka blende xanaa loolu moom bu keroogee xanaa loolu dina doy waar de. naam sécurité rek. keroog boo gisee xale ñu topp yëpp saa yi wax na loo xamante ni foofu boo fa eggoon kenn waxtu ko. billaahi Seexuna kaay balaa waaw ba tey mu mel ni naa rek comme ni ma la waxee euh, kii Gomis di mooy Seexuna laa toogal moom tamit bokk na ci ñu jege Modou Lo Seexuna combat bu mu mel ni fi mu nekk nii coow coow li dafa bëri lamb bi moo doog ama coow li coow li coow li bëri na de ah lamb bi moo bindoo noonu bés bee tool noonu quoi moom Modou moom rek bruit la waxuma laa nga war a mën a dajeek moom nag ama ama it ah, la ama bruit la kay ah. waaw est-ce que du bëri bu nekkul bëri bu leen jaaxal. non ñun moom mbër mënuñoo jaaxal ci àdduna amul dara dara dara lu ñu mën a saccager wala nga trouble ñu xama wala nga ñëw du ñu embouteillage ko non non même waaw ñun moom saa yi Modou daal du ma ne Modou Lo sax Modou Lo laay wax. Modou Modou Lo. loolu yaa ko génne lu bees. waaw ah, ndax Modou Modou àdduna la kon donc. boo jugee feneen pour ñëw triple sax balaa nga egsi di nga daj koo xamante ne nii kooku la gën a bëgg muudu que ñi nga xamante ni saa ñi rek ñun moo loolu kenn mënuñoo teg pression ci làmb déedéet. kon daal jàpp ngeen ne yéen kenn du leen nga est wax a bëgg a maanaam kenn mënu leen embouteillage loolu nga wax ñun amul kenn koo xamante ne mën nga ñu teg fitna ci lépp nag ndax ñun lépp lu ñu dem dañ ci ànd ak dal ànd ceeg yar xam nga ñoo am ay tamit yoo xamante ne nii balaa ñoo dem ñoom ñoo ñu yëkkatiloo nañ jug leen ngeen def lii bàyyi leen lii ko ñun ci ndigal rek la ñu wéy waaw ñun daal ci loolu lañ nekk. ci loolu ngeen mhm. bi daal noonu ngeen ko nar a aborder. waaw incha allah ko nar a maanaam ci noonu lañ ko bëgg a incha allah ba keroog ñu egsi ci cappaandaw ga bu fekkee nag ñoom na bëgguñu loolu. bu waa ñu xool leen lu ñu def. Modou ak Ama wóolu ngeen seen xel dal na ci ñoom ñaar cib géew. parce que Ama day daa mel ni du may kenn dal dara de. kenn ñaanu ko dara boo may kenn dara. ñaanu ngeen ko dara déedéet Modou ñaata combat la bëre. waaw ah, mi ngi noonu kii ñu soog laale ak moom nag laale woon nañ ak moom fii ci terrain église. daa yàgg. waaw loolu lu yàgg loolu noonu dañuy ñëw wanaat ko ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay fi ngay toogee. kon da ngeen yaakaar na ngeen ko mënoon boobu ngeen ko mën maa ba tey. wallaahi ñoo ko mën fuuf. a ko mën fuuf. wax nag xama wax waxaat bëri wax la te ñoom ko soo ñoo woddoo seen làmmiñ di wax ñu leen bàyyi ak loolu rek incha allah bu bis ba. kontaan ci yow. maa gën a bëgg ci yow suñu ko looy wax monde làmb parce que tamit ku leen xam-xam ne. yor ngeen ay mbër ci parcelle di dund ak ñoom rawatina muudu defe naa tey message bi ngay tëjee ban lay doon looy ah, wax tamit waa Pikine parce que tamit lu mënti xew rek ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ndaxte boo ñëwee parcelle da nga fekk ay soppe ama nga dem pikin fekk fa ay soppe muudu parce que noonu la Sénégal bindoo ku nekk am nga ñu la bëgg defe naa tey ban message nga leen di mujj a lancé muy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaari camp yëpp ak tamit ñuy dund làmb waaw ñaari camp yëpp li ma leen di mooy xam nga ñu ànd ak dal kon nu ko waxee sànq rek affaire yi Modou Lo la ak Ama ñoom ñoo jot seen avance ñooy bëree balaa mu jeexee ñoom ñoo jot ñoom ñoo jot seen rédica ñooy dem te Modou ak Ama bu ñu ñëwee ba sëkk dembalante nit ñi duñ ko fekkee parce que ay mbër li sport la day jeex comme daanaka nañ ko def dans le calme bu demee signature contrat ñu def ko dans le calme persone ñuy laaj ñu dem xam nga ba pare affaire am sécurité. xam nga di baalu ñëpp ak surtout nag waa cité kër Moutala boobu ñu ko doon defee xam nga ñoom dèjà xamuñu loolu dugg ko ñu jàmbur perturbé ko xam nga dugg ko ñu jàmbur pertur foofu jaxase def lu la neex xam nga neexul quoi tamit làmb moo toll foo xamante il faut que il mu am évaluation boo xamante ni xam nga mooy loolu làmb moo dépassé moo dépassé affaire yi nii léegi mbër yëpp ñoo bokk ndey baay mais ku ci am combat ñu def ba mu neex bëre. waa safal mu saf bëri mais pour mais pour bu dee ci condition yi nii da ko bëgg a basé wu day yow yàq làmb billaahi kontaan ci yow waaw bëgg ci yow Babacar waaw di la gërëm di sant di nuyu gaa yëpp su gaa yi fi nekk ñoom Ahmed Cheikhouna ñoom si Baba xam nga Serigne Ndiaye sama gaa yëpp quoi maa ngi leen nuyu waa di nuyu Modou vraiment di ko ñaanal jàmm ak wér di ko ñaanal ama ba juru làmb ja yàlla may ñu ndam bu sedd guy loolu rek loo quoi affaire bi amul leneen amul ay nekk fii ruubee kërëb kërëb xam nga dañ def noonu naa ko au calme rek bàyyi ñaari mbëri ñoom ñu defante mu saf mu neex mais bu dee non c'est-à-dire problème bi mooy yow miy ruubee gënoo bëgg mbër mi combat bi kon defal ndànk rek ba ñaari mbëri toog wax sax ñu xam li ñuy wax lan la waaw vraiment vraiment tal Babacar làmb dafa yàqu woon mm-hmm. comprendre nga gars yi nag ay ambassadeur fu dañu toog fa kon buñ buñ jee bañu ubbul ñu affaire yi tamit saay tamit foog ñu rafetal ko ko dégg ngeen li mu wax dégg ngeen seexu naa tam li mu wax defe naa ne làmb la rek du passé làmb ñoom ñaari mbër yi moom lu mu mënta xew ñooy mujj sa géew ba ñoom ñooy bëree kon tamit yéen ñi ànd ak mbër yi muy waa kër Modou di waa kër Ama na ngeen fexe jàppale mbër yi ci ñu am maanaam fu ñu mën a waxe seen xalaat amit fu ñu mën a taxawee bëree jàppale promoteur bi parce que ko Nicolaï ay million yu baree baree bari la génne jox ko Modou jox ko Ama parce que maanaam bëgguleen a tëgg nii rek wax ak ñoom rek ñu nangu de daf leen a fay kon nag nañu jàppalante fexe combat bi signature yi am te neex ñu bëri mu ànd ak moo mu bañ a ànd ak benn violence parce que tamit comme li ñuy wax rek Parcelles ak Pikine benn dëkk la Sénégal mooy benn dëkk te benn bopp kenn du ko xar ñaar te itam Pikine ay garme fa dëkk ay jàmbaar Parcelles kazalika naka noonu ay jàmbaar ak i garme fi dëkk Sénégal noonu la bindoo yàlla na yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar ñëpp képp ku ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi lay ñaanal jàmm di la balwaaxa bu baax a baax